salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi ñu ngi leen di dalal seen li nga xamante ne moom mooy émission bu bees émission bi nag tey di dalal gan bu gan bu mag muy ki nga xamante ne Serigne Ousseynou Mbacke di ko wax Mbacke ay sa dalal jàmm yow la fi sa maam julli-julli gu rëy gi fii si géej gi def fi Lamp Fall wax fi lépp loo xamante ne si yoonu murit di wax ne ne kàddu gi bu juti jubee rek nañ xam ne yàlla la mais bu dëngee nañ xam ne xale buy taataan la kon Mbacke Balla duggal nga nuyu ñu ngi lay ta ñu ngi lay tatagal macha allah. yaa faddilan faddalahol xalaaxu yaa man bihi faaraxanil imlaax wa baxdu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sunu mbokki internet yi jàkkaarloog ñun di ñu topp ci seen site bu am solo bii di Ndayane TV ñu ngi leen di siyaar te di leen nuyu di jiital ci nuyoo bi xalifatul haam di tarixatul muridiya sëriñ Muntaxa Basiir Mbàkke di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di siyaare bu baax sëriñ abul baraka mi nga xam ne moo toogee jataayub seex Muhammadul Fadal ak njabootuk sëñ Fallu gépp ak sunu jur sunu sëriñ sëriñ Ateex Mbàkke Falilu di sant bu baax ci bokk gi nu bokk tey ci jataay bi di nuyu soxna Astu mi ñu dalal tey am mbégte ci yow bu baax ak jataay bi ni mu fas tëdde nekk ci say disposition ci lépp loo xam ne dox na sunu digg ak yow ci ay laaj ñu tontu ca sunu kem kàttan incha allahu rabbi bu ñu tuddee màggal suñu xel il faut que mu dem si Serigne Fallou Mbacké dañu ne Serigne Fallou Mbacké kuy wax màggal rek fi mu toll war nga ko jox droit d'auteur loolu lan moo tax. tey eh, jërëjëf euh, soxna Astou baatu màggal moom dafa euh, jóge foo xam ne li tax ma Mahamadul Fadal am ci cër bu mag mooy ku ne xam na Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu rasuul wutalul boppam bi sàkkalul ku boppam dafa wut bis boo xam ne dafa ne dama bëgg saa yu ñëwee ngeen santale ma ci yàlla sama borom ndax jaam laa boo xamante ne si lottu naa ci di ko sant te it ma bëgg képp koo xam ne sama mbég sama mbég la boo bis bi ñëwee nga sant la ma ci sama borom loolu mooy màggaluk Touba gi nga xam ne Serigne Touba moo ko digle waaye bu ñu demee ba màggaluk Touba tasaaroo mel ni mu mel Cheikh Mouhamadul Fadal moo ko wooteel Serigne Touba ci Touba kon màggal foofu la amee solo am solo goo xamante ne tey képp ku ciy bénéfice wala nga ciy jariñu rek Cheikh Mouhamadul Fadal am na am na cër ca jariñu googu jariñu ndax ñett yi nga xam ne moo gën a nekk bëgg-bëggu sëñ bu mag bi wala lenn féetewu ko ci li sëñ Tuubaa bëgg loolu Cheikh Mahamadul Fadal moo ko ko mottali ndax moo ko wooteel màggal gi yeggaleel ko jumaa ji néegub yàlla bi waaye mottali jël ko yéene ji nga xam ne amoon na ko te mooy siyaare ji sangam ba rasulillahi ñàkkul danañ ci ñëwaat ci biir jataay bi waaye li tax màggal am solo ba fu ñu ko tuddee Cheikh Mahamadul faadal am ci cër ñu nit noonu amee yëg-yëg ak pas delluwaat ci moom Cheikh Mahamadul Fadal di ko màggal ndax boo demee ci alquranul karim mboolem wa askru waskru fil kitaab yi sunu borom di wax ci alquran yépp kam cay teg lam ci jublu dafa bëgg ñuy roy ci ay jikkoom ñu nit loolu moo tax ñu koy màggal ngir bëgg mbindeefi yàlla yi ak ñun ñi nga xam ne mooy sunu royukaay di sunu bunt ci lislaam ak diine ak Serigne Touba ñu mën a roy ci jikkoom yi tedd yooyu loolu mooy sababu su màggal gi. dañu ne li si maam sëtë koy doon lan moo la motiver ba nga def màggal te lan moo la xiir yan initiative da nga toog xam-xam bi ñëw wala mu inspiré la wala leer la bu dox ci yow ba nga def nii tey màggal pour le 20 février incha allah. waaw jërëjëf li ñu jox yitte yi ñu nekk ci li ñu nekk ginnaaw bi yàlla dogalee ñu jaar fi ñu war a jaar fépp foo xam ne doomu soxna war na fa aw ci ndigalul suñuy jur ak seenu jàppandal ci ñun la ko doore ca daara ja muy sàkku alxuraan ba mu nekk ci suñuy dënn. ba noppee ci loolu mbooleem mboolem fànni xam-xam yi nga nekk yi nga xam ne bu ci ne warteef la ci ñun mu nekk ci ñun ñu def ko ci biir réew mi ak bitim réew ba noppee ci loolu ba pare nag dañoo amatul benn yitte wala benn bëgg-bëgg bu dul nekk ci toolu lislaam bi di ci lëggeel Serigne Touba waaye di ko jaare ci Cheikh Mouhamadul faadal ñu bokk ci ñi nga xam ne it bu Serigne tubaa amuloon du ñu am am taw feexu it seex Mouhamadul Fadal jur suñu woy juru góor kon ñun benn yitte rek lañu war a am mooy tàmbalee ci sëriñ bi di yem ci sëriñ bi sëriñ bi nag mooy diine ak lislaam kon li ñu motiver li nga xam ne moo ñu gën a jox himma yittey ñu mën a nekk ci tool bi ñu nekk di ci bay muy toolu lislaam bi mooy xam ne loolu suñu warteef la amuñu leneen lu ñu war a nekk lu dul nekkal sëriñ bi ci li ko gënal te sëriñ Tuubaa li ko gënal mooy lislaam ak diine loolu moo ñu gën a jox yitte ji tax ñu nekk ci loolu te fas yéene wuñ ko génn ba ba mukk tey jii buñ tuddee sëñ Fàllu Mbàkke il faut suñu xel dem si famille Musoobe Musoobe ah jigéen ña fa nekkoon dañu wax ne dañ nekkoon ay kàngam si wàllu alxuraan loolu noonu ak ah, jigéen ñi tey jii lan nga ñuy indi si màggal gi. Euh, jërëjëf soxna Asou bu ñu tuddee Cheikh Mouhamadou Fadal faw xel dem ci soxna Awa Bousso ndax mooy way juróomu jigéen waaye faw xel dem ci soxna Mariama buso muy jaaratullah di way juru Cheikh Ahmadou Bamba di maamam. Euh, ñu nekk famille boo xamante ne si rek ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari tomb jot doy na sëkk ci ñu taxaw ci ngir xam ne ay tànneef lañu bi ci njëkk mooy moom soxna Mariama Bousso maam jaara mu nga xam ne moo meññ seexul xaddim bi ñu koy muur muy dem kër di ko jox sëñ Moor Anta Sali moom ci jëmmam bokk na ci lam yittewoo te doon ko laaj mooy ndax kiñ koy jox mokkal na alxuraan ñu tontu ko ne ko mokkal na alxuraan ba di ko jàngale soxna jaara daan ne kon loolu rek mooy li nga xamante ne si moom laa doon sàkku loolu it ñu mën cee jële bind bu rëy jox ko suñ mbokki jigéen yi ndax di la dénkaane ngay dem kër di la wutal borom kër laajoo lan la am wala lan lay lan lan lan lay liggéey wala nangam waaye lenn rek nga laaj ndax mokkal na alxuraan ñu tontu la ca ne la mokkal na ko ba di ko jàngale nga ne loolu rek laa yittewu woon moom tamit moom soxna Mariama Bousso mi nga xam ne moo doon demit yàlla def ab dënnam alxuraan nekk ca loolu mooy tànneef bi nga xamante ne si sunu borom defal na ko askan woowu nga xamante ne si mooy askanu Mbusoobe sëriñ sëriñ di sëriñ bu mag bi wax ne bi ko sunu borom di wàccee ci jaamam yi ci mbindeef yi ngir mu ñëw fi war a nekk ku leen di xettali ku leen di sobe nee na sunu borom da ko may ci dogalam moom sëriñ Tuubaa ci dogalub sunu borom nee na ci la ko yàlla mayee ci coobareem moom sëriñ bu mag bi mu tànn aw xeet ak askanam ci la tànne xeetu xeetu sénégalais ci la tànne it askan woo xam ne mooy Mbàkke ak Buso nee na li tax mu tànn ko dafa gis ne dañuy mokkal alxuraan tey nangoo jaamu yàlla di ci te di ci sonn te wooyefal seen àddina ba noppi boole seen bopp tey bëggante day toppante sëñ Tuubaa nee na loolu moo tax mu feeñ ci askanu Mbàkke ak Buso loola nag bu ko gisoon feneen ni dana ca feeñ waaye foofu la ko gis kon bu ñu tuddee Sëriñ Fallu tudd Mbusoobe tudd Seexul Xadim tudd Mbusoobe dañoo doon askan wu sell woo xam ne ay jaamukati yàlla lañ ñu mokkal alxuraan lañ peg ko def seen yitte yépp muy alxuraan ak jaamu yàlla loolu it yaakaar naa ne tawféex la joo xamante ne si dafa topp Sëriñ Fallu ndax ni ko Seexul Xadim amee noonu la ko rafaatale ba tey naan alxuraan te ku dégg alxuraan fi mu toll dem si waa bi te dañu ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi is bi izni si xabu xabusa laa yaxruju illaa nakidan te gis naa ne ne si sa poster bi nga def danga nga def euh, wal baladu tayyibu génération bu baax boobu noonu lan moo la si gën a xiir en tant que set ok jërëjëf soxna Astou laaj nga ma laaj bu ma neex ci tur woowu muy wal baladu tayyibu ndax tànnaluñ ko sunu bopp dañu koo tànnal. sëriñ Touba it moo nu ko tànnal ndax ki ñu ko tànnal mooy Serigne Touba ndax 2004 bi nu nekkee ci al ashar bu Cheikh Mortada bii ci ndakaaru ci géejawaay di fi sàkkoo xam-xam ci gox bi ñu nekkoon ci lañu sunu borom moo ñaaleeg ay ndaw yoo xam ne dañ ñoo soppal seen bopp doxali ñu seen digg ak sëriñ bi bi loolu amee it ñun nañ ñu neen ñu ne nañ leen wutal màndarga woo xam ne tur woo xam ne danañ koy doxe ñu doon ca seen jëwriñ nekk ca seen njiit waaye loola buy amit duñ ko tànn ci sunu coobare ndax sëñ tubaa dafa wax ni yéen ñi aju ci man bu ngeen bëggee seeni jëf di nangu lépp lu ngeen di jëf na ngeen ko teg ci ndigal noonee la ñu demee ci sëriñ tubaa sëriñ saalihu mbàkke ànd ak suñ mbokki taalibe yooyu ma lay wax fekk fa ku ñuy wax sëñ tayib jaxate ku xam jataayub sëriñ saalihu xam ni mu mbokkeek sëriñ bi ci mbokk waaye ni mu jege woon sëriñ bi ñu jaare ci moom moo ñu yóbbu ci sëriñ saalihu ñu toog ak moom siyaar ko yeggee ko ne ko mbokki taalibe yi kat dañoo doxale suñu digg ak seen suñu digg seen digg ak sëñ Tuubaa dañ ñu koo doxale bëgg ñoo tànn ñu doon seeni i jëwriñ waaye ñu nit ñu ne nañu dellu ci yow nga wutal ñu aw màndarga aw tur woo xamante ne si moom lañ leen di jox ngir ñu di ko doxee ñu nit ñu ànd ak ñoom ci tur woowee ci mbaaxuk Serigne saaliw ak kàttanam moom ci boppam moo jël aw këyit bindu ci turu wal baladu tayyibu yuxruju nabaatuhu daan ñu koy jox ne dee leen ko doxe mu doon seenu tur te ngeen ciy liggéeyal sëñ Tuubaa du baladu tayyibu nag ku ko xam xam ne gàncax gu teey la kon bu ñu ko sëriñ saaliwu doonoon sañ Tuubaa nekkoon xalifa général des mourides joxe ne nañ ko def aw tur aw màndarga di ko doxe ñu nit ñu ci loolu di ci dox dañ koy def ak sant yàlla loolu moo tax nag mu doon sunu màndarga ci toolu lislaam bi ak diine ji rawatina yoonu murit bi nu bokk muy sëñ Tuubaa ndigal rek la àndal murit dama seetlu seen kuréel yi màggal boo leen di def dafa mel ni rek dafa am benn aaya bu leen di liyee yéen ñëpp muy kuntu xayru ummati uxrijat linnaas tamaaruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkari yéen loolu noonu nan la ko sëñ Tuubaa defee si yéen ndax dañu ne li si li si sët bi maam ci maamam la ko jëlee en tant que sët boo xamante ne jege nga sëñ Tuubaa yow tey boo ñu doon digal lan la. koy jërëjëf soxna Asu loolu moom barke la bu ñuy barkeeloo rek ci sëriñ bu mag bi ndax ku ne xam ne sëñ Tuubaa moom li mu lëggee ci toolub lislaam ak diina yépp ci ndigalul boromam la ko defee ndax keroog bi mu nekkee Mbàkke Kajoor di fa jàngale am yittey di jàngale alxuraan ak euh, xam-xam fa la ko fa fa la ko yi fekk ne ko sunu borom nee na digal na la nga yar say ñooñ ci yitte maanaam ñu yittewoo xam-xam waaye nag ñu boole ci liggéey waaye nag nee na it nga tarbiyee leen kon ndigal loolu ko sunu borom joxoon moo topp sëriñ bi ba mu bàyyi njàngale ma ne ku doon ku fi jàng taxoon a ñëw xamal ne amatuma jotug jàngale bis na ko tey ku fi tarbiya taxa taxa taxa taxa taxa nekk nag na nga fi des ñu ànd tarbiya wu liggéeyal suñu borom noonee la fi sëriñ bi ñu jëfee ndigal loolu ba jóge fi dem ci tukkeem bu sori bi ba dellu siwaat nekkat ci ndigal loolu ba niñ ko noppee gis ci suñuy gët moo tax ma wax la léegi ci sama biir kàddu laa tax faloo sayan bi xayri isnin gi nga xam ne mbindum sëriñ bu mag bi la moo ko digal ay ñoñam dafa ne yéen ñi aju ci man ñëpp su ngeen bëggee seeni jëf di nangu lu ngeen jëf dee leen ko teg ci ndigal kon ñun it foofu rek la ñuy teg sunu tànk mooy lépp lu ñuy def ñun ñi nga xam ne ay murit lañ ay taalibi sëñ Tuubaa lañ lépp lu ñuy def ci ndigal lañu koy teg ndigal loolu nag dafa sasoo ci ndigal li sëriñ bu mag bi amoon ci diggam ak boromam ci bi muy liggéey liggéeyam bi di woote wooteem bi di di bay waaram ci toolu lislaamam lislaam bi ak diine ji ndigal li ko sunu borom joxante jaare woon ko ci yonent bi ñu nit ndigal loolu moo nuy topp ci suñu digganteeg sëriñ bi ba lu ñuy mën a def ci yoon wi rek ci ndigal lañ koy teg ba ci lii ñuy waxtaane ak di ko namm ak di ko xalaat di ko waaj ngir def ko bin koy waaj dem nañ ba ci ki fi nekkal sëñ Tuubaa muy sëriñ Muntaxa al Basiir mu jox ñu ci ndigal ñaanal ñu ci ak ki nga xam ne moo toog jataay Cheikh Mahamadul Fadal ak sunu wayjur wi ñu wi ñu njaboote loolu nag mooy warteef wi war ci ñun lépp lu ñu mën a def ñu def ñu teg ko ci ndigal te soxna si bul fàtte na nag ndigal moom mooy li nga xamante ni si eh, lépp lu nit mën a def ci ak dundam maanaam moo war a njëkk ci moom doon ak njëlbeenam war a nekk ak mujj ci moom nekk mujjam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mas a réaliser ci ak dundam rek ndigalul boromam la boo demee ci alxuraan li ci sunu borom santaane nga ñëw ci hadis li ci yonent bi jàngale nga ñëw ci mbindum sëñ bi li ci sëñ bi wax kon lépp loo xamante ne si nit ki mi ngi koy nekk ci ak dundam su ko tegul ci ndigal yaakaar naa ne mën na caa juum ñu nit loolu rek moo ñu jox joxañ bi war a tax sunu lépp di nekk ci ndigal bañ a génn ndigal yaa ngi def ba léegi si nekk ñu nekk si biir màggal bi te dafa am loo xamante ne daf ma xaw a yéem ci sëriñ fàllu juróom-ñaari sëñ fàllu la dégg fu ñu toll asamaan juróom-ñaar suuf juróom moo indi juróom-ñaari sëñ fàllu waaw xam nga juróom-ñaari sëñ moom yaakaar naa ni sénégalais yëpp miin nañ ko ci ne ci ñaan sa aajo suñ borom dana ko faj loole it li ko gën a saxal mooy jaamu yàlla bu yàlla gërëm boo xam ne da jël sa lépp jox sa borom lu mu la mas a digal def nga ko lu mu la mas a tere sori nga ko mosoo ko mooy lu dul topp ko jaamu ko yaakaar naa ne mën ngaa dem ba am pouvoir boo xam ne ci yàlla sa borom mi la sàkk lépp lu nit di wut ci yàlla bu ko jaaree ci yow dana ko am te loolu mu ngi ci yonent yi mi ngi ci xutbu samaan yi mi ngi ci awliyaawu yi mi ngi ci nit ñu baax ñi Cheikh Mouhamadul Fadal nag ci ñooñu la bokk bokk googu mu ci bokk nag doon koo xamante ne si jaamub yàlla la bu yàlla gërëm am na taw feex ju ko sunu borom defal tamit moom seex Mouhamadul Fadal ci boppam jagleel ko mu am kun fa yakun boo xam ne day wax boromam sàkku boromam sabablu boromam yàlla di ko defal la nga xamante ne si mooy yitteem ci loolu loolu topp ko law ba nga xamante ni si fi juróom-ñaari sëñ fàllu yi sosoo ci liñ ci mën a wax ñun te sañ koo wax te muy histoire ci lu wér mooy dafa am ku ñëwoon ci moom Cheikh Mouhamadul Fadal ne ko man de saa yu may ñaan yàlla saw tur tudd juróom-ñaari yoon suñ borom defal ma aajo ji mu faju suñu faal ne ko waaye juróom yi sax juróom-ñaari sax ëpp na ci boo ma woowee benn yoon rek suñu borom faj sa aajo daana ko matu ko nga xam ne kon loola foofu la bàyyi ko juróom-ñaar yooyu it mën nga koo jox ay symbole yu baree baree bari ci suñu boroom subhanahu wa taala ci ay turam ci li yàlla bind muy ni nga ko waxee léegi muy asamaan si muy ci anam boo ko mën a firee rek mu doon misaal mu mën a dëppoo ak mbirum seex Cheikh Mahamadou Fadal loolu nag da nga koy delloo rek ci aayab alquran bi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala ci waxam la bokk te mu nekk ci alxuraan te dëppoo ak turu Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne keroog bi Serigne lu feeñee jamono te Serigne bu mag bi joxe ndigal ne nañ ko jox aw tur te tudd ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa digal ña ko doon jox tur wa ne leen bu ngeen ko tuddee Muhammad ba noppi lu seenum xel dem na ngeen ko ca dolli keroog bañ ko tuddee ba noppi wax nañ ne toog nañ diir bu yàgg kenn ci ñoom ci ñaar ñooñu Serigne bi joxoon ndigal li muy Serigne Mbacke Bousso mi nga xam ne moo jiite woon ndigal loolu Euh, toog nañ jataay bu yàgg li leen sëriñ bi waxoon seenum xel mel na daa da dañ ko effacé dara newu ci waaye bi nu jekki-jekkee rek moom sëriñ bi ci boppam daal di téen mel ne dañu ko téenal mu xool asamaan ci la gis ñu bind ca saalika fadlullahu yotti man ya saaw wala awsul fadlil hasim mu xam ne lii la leen sëriñ bi digal loola nag boo ko tekkee ci turu Cheikh Mouhamadou Fadel muy ngëneeli yàlla yi yaakaar naa ne kon yell na ci bu fekkente ne nit dafay sàkku ci boroomam Euh, mu may ko wala mu defal ko muy tudd turub jaamu yàlla rawatina Cheikh Mouhamadou Fadal di woo aw turam ba ñu wax ci li ñu miin te dégg ko ñun ñëpp te xam ko soxla su nit am juróom-ñaari sëñ fallu mën na koo faj yaakaar naa ne loolu it lu xel mën a nangu la ndax kenn ku nekk ci ñun ak ñi ñuy topp yaakaar naa ne aajoom ma aajoom mas naa fajoo ci juróom-ñaari turi sëñ fallu yooyu wala man mii di wax de xam naa ne loolu lu am la kon sabab bi foofu la bàyyi ko. Euh, pas amoon nañ ko. di nuyu Serigne Mountakha mi toog ci jël bi yànn yéen bi oyof si kawam de passage di wax ne pas-pas boobu nga xamante ne surtout bu nu waxee pas-pas man samay xel sama xel dafay dem si boroom Lamp Fall làmp Fall Baabul Muridi moom lan moo indi Lamp Fall si moom Cheikh Ibrahima Fall ndax koo dégg mu ne man Baay Fall la wala Yaay Fall la moom ban cër la am si yoonu murit ah, xam nga boo delloo ci alxuraan am na fu sunu borom di waxee ne am na loo xam ne lu gaaw a yóbbuwaate ci moom la moom sunu borom lu fa lu fa gaaw a yóbbu ab jaamam la mooy nga fekk nituk yàlla gu mënta wax boppam nga wane ko bañ mën a jariñu ci moom Cheikh Ibra Fall di jaamub sëriñ sunu borom boo xam ne yàlla moo ko sàkk mbooleem lu nit di am Cheikh Ibra am na ko ci juddu ci askan ci xam-xam ci daraja ci lépp waaye bi nga xamante ne si am na fu mu bëgg a yegg moom ba pare am cër boo xam ne ci boromam xam ne ne fee mu mën a àgg kat la ko fa mën a àggale mooy loolu sunu borom santaane ci la ko sunu borom booleeg Cheikh Ahmadou Bamba mu doon jëwriñ ji nga xam ne da ko war a wane loolu mën nañ cee bañ xootal dëgg-dëgg waaye bokk na ci yitte ji Cheikh Ibra amoon ci diggam ak Sëñ Tuubaa mooy pas-pas ndax bu ñu fàtte ne it yon pas-pas boobu nga xam ne moom la nit yàlla yi am moom la Cheikh Ibra amoon ci diggam ak sëriñ bi di Sëriñ Tuubaa ngir li nga xamante ne si ndigalul borom moom la mu waroon koo dox ci diggam ak sëriñ bi te mooy mën a wane seexul xaddim ban mën a jariñu ci moom loolu yi doy na sëkk ci exemple biñ ci mën a joxe rek mooy lam waxoon ne sëriñ bu mag bi daal man lii sama yitte ci yow mooy ëllëg fu ñu tudde sa mbaax gi tudd fa sama sama safaan loola nag mooy fu ñu tuddee mbaaxuk sëñ bi rek tudd fa Seex Ibra te loolu sunu borom defal na ko la ko mayoon nag mooy lam sàlloo woon ak lam nekke woon ci ëttub Seexul Xaddim mooy daf ne woon dann sëriñ bi rek am pas-pas bu wóor bu dëgër ci diggam ak sëriñ bi ci ngir wane ko wane goo xamante ni tey yàlla sunu borom lim def ci sëriñ bi mbindeef yi danañ ko mën a xam ba mën a jaare ci sëriñ bu mag bi mën a xam rasulillahi mën a xam sunu borom yi leen sàkk te moom leen pas-pas boobu nag moo fi nekk te moo nekk continuité bi ci yoonu murit mooy képp koo xam ne sukk nga jëbbal sa bopp sëriñ Touba sëriñ Touba nekk sa jëwriñ ci toolu lislaam bi bokk na ci sart yi war ci yow mooy nga am pas-pas ci sa digg ak sa borom am pas-pas ci sa digg ak rasulillahi waaye am pas-pas tamit bu wóor ci sa diine ak sa lislaam ba nga xamante ni si dara du ko màbb loolu moo nekk continuité bi nga xam ne bokk na ci ponk yi nga xam ne boo demee fi sëriñ bi tënkee bayitu tuubaali habdin muridin saadixin lahumoo bi xidmatin aw bi xubbin aw haadiyatin noonu mu wax ne noonu la ab ab ab murit bu nam ma dem ci boroomam maanaam jaamub yàlla bu nam ma dem ci boroomam noonee la war a mel mooy mu dëggal ak ak ak muritam ba pare doon jaamu jaam jaam boo xam ne day nangoo jaamu yàlla ba pare nangoo liggéey nangoo sonn ngir sa bopp ndax ku nangoo la liggéey danañ la manal te kun manal sañal la sëriñ bi ne kon loolu tamit dana war ci yow nee na bu loolu noppee ba pare nag nga door sopp sab sëriñ noonee mu ko diglee it Cheikh Ibra amoon amoon na ko ci diggam ak moom sëriñ Touba mooy soppoon na sëriñ Touba bu boolewu kook dara kon loolu it bokk na ci li nga xamante ne si mën nañ koo jàngat ci dund ci ci ci jëmmi maam Cheikh ma Fall ci pas-pas boobu nga xam ne amoon na ko doy na misaal rek ci li xew barki démb ci mm, kër sëñ tubaa gi nga xam ne dafa nekkoon barab buñ daan fooy fii ci Mbàkke te mu jàkkaarloog armeel yi ndax sëñ Touba nee na ci Mbàkke Bawal ñaar fekk na ko fa wax na ne fa la njëkk a gàmmoo wax na it ne fa la njëkk a fa la ganee jamono kon fu sëriñ Touba ganee jamono euh, njëkk faa woote gàmmu ñaar yooyu benn féetewu ko ci kaw nga xam ne barab boobu nga xam ne dafa jàkkaarloog fi sëriñ bi ganee jamono bi ci sëriñ Muntaxa defee yitte jëm ci def ban jox ko ko bañ jox ko jox ko sëñ Tuubaa àddiye daf ne da koy tabax daara joo xam ne dañ ciy jàngale ak yare barki démb bi ñu ko joxee Baay Faal yi ngir ñu war a def liggéey bi te sëriñ Seex Basiru moom sëñ Abdul Xaadir war a teg xeer wi ci ndigalul sëñ Muntaxa man maak sëriñ Basiru ñoo àndoon keroog pas-pas bi Seex Ibra am feeñ na ci njabootam te mooy Baay Faal yi ndax tegu xeer la ñu woote ñu defar ñaari junniy mool yoo xam ne bàyyi faal yi ci seen biir kenn ku ci ne gàddu nga aw mool fañ ko defaree indi ko fi ñu tegee xeer yi ngir tàmbalee ko def ko barkeelu kon misaalum pas-pasu Seex Ibra ci sëñ Tuubaa mi ngi fireekoo ci njaboot gi nga xam ne moom la fi bàyyi tey te ñuy bàyyi faal loolu doy na sëkk ne kon nit ki lu mu mën di doon pas-pas moo la cay jàllale moo la cay àggale fa nga war a am ndax bul fàtte ne it sëñ Tuubaa diggam ak boromam wala co xaddiman fi imtidaahi muhammadan diggam ak rasulullahi wala co xaddiman fi imtidaahi wasilati yooyu yëpp ay engagement yu mu am ci diggam ak boromam ak rasulullahi ba mu ko amee nag pas-pas bi moo ko puus ba mu àgg fa mu ca war a àgg Seex Ibra it noonee la ca mel ñu nit nañu roy jëmm yooyu ci pas-pas bu wóor ci sunu diine ak sunu lislaam ak sunu ngëm ba daal bañ cee rëcc. Mbacke Balla Aïssa ma bëggoon rek tey ñu dugg ci sa journée bi journée bi ku dégg 16 février xam ne sët mooy màggal maamam jox li nga xamante ne moom la ko maam ji te yaa ngi wax sànq ci sa biir yi wax nga ne engagement. engagement bi nga xamante ne am nga ko ba mu motiver la nga def màggal bi di wax mbokk internet yi kii la Serigne Ousseynou Mbacké euh, di setu sëñ Fallou direct euh, bu màggalee war na màggal bu màggalul warul war na màggal kon Mbacké Balla dugal nga wax lan moo tax nga jërëjëf euh, soxna Astou li ñu gën a jox yitte ba tax ñuy woote bis bi nga xam ne dañ koy def at mu nekk ba ñu toll ci fukkeelu xew-xew bi ak juróom-benn ñu war koo amal bokk na ci lenn rek mooy boo demee ci mbindum sëriñ bi da ci fekk foo xam ne ku tedd ki mi ngi wax ne sama dund sama dund gépp bis bu nekk ci bisi feet la ci man nee na nan laa koy feetoo mooy yàlla sama borom rek moo may yitteel moo may ñor sama sang ba rasulullahi rek mooy doon ki nga xamante ne si mooy doon sama yitte kon ñun ñi nga xam ne dañuy tudd di tudd sëriñ bi it bis yi nga xam ne dañ koy def wala dañ koo war a sàkk di ko def mooy fexe ba fii jamono toll ak yi ci xew ak yu baree bari ñu fexe ba njëkkante ñu it ba jël loola jooyal ko ci li ko gën a yelloo te mooy diine ak lislaam bu dee Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne it yàlla dogal na moo nu njaboote ndax bu amuloon du nu am ndax moo meññ suñ way juru góor di sëriñ Atex Mbacke Falilou ñu nit bi ñu nammee lëggéeyal sëriñ Touba te jaare ko ci toolub lislaam bi ak diine bi mënuñu koo adresseel sëriñ bi directement ndax ku ne ak sa buntu ca la nga nekk ñun nag Cheikh Mahamadul Fadal di sunu buntu moo tax bi ñu demee ba li ma la ko waxee léegi ci njëlbeen waxtaan yi yàlla boole ñu ak ay mbindeefam ay ay ay ay jaamam ñu am ci ñun cofeel doxale ñu seen digg ak sëriñ Touba def ñu ñuy seen jëwriñ am na kenn ci ñoom ku ñuy wax sëñ Xaadim Kamara mi ngi fi jëwriñ la ci liggéey bi moom moo toog bis ne ma dañoo am yëg-yëg ak yéene wut bis boo xam ne dañ la koy defal ngir di la ci sant ba ma ko waxee it ma rafetlu ko lool xamal ko ne ko nag ak cant moom yelloowu ko bu amee ku ko yelloo kenn képp la mooy Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ne ko nag damaa bëgg sax ñu sant Serigne Touba waaye jaaree ko ci Seex Muhammadul Fadal bi loolu xewee it ma ne ko nañu wut daliil boo xam ne bu wóor lay doon boo xam ne bu jamono doxee ban laaj ñu lu ngeen ci jublu comme ni nga ko defee ñu man koo tontu man koo layal noonu it la xalaate ci defin gi koy defee ci ban tur lañ koy jox wala ci ban dalil lañ koy teg boo xamante ne sii dana nekk ab delluwaay bu wóor boo xamante ne sii dana war ne dana dana dana war a tax ñu xam ne lii ñuy def war nañ koo def noonee la ñu sëriñ bi dimbalee ba xalaatal ñu sunum xel dem ci ajug màkk gi nga xamante ni si euh, Cheikh Mouhamadul Fadal demoon na mottali ji ay farataam waaye defaloon ko it way juróom a sëriñ Touba waaye yéene waale woon ci képp ku yaakaar sëriñ Touba aj googu nee na mu nekk sa aj moom Cheikh Mouhamadul Fadal loola nag sëriñ Touba ci boppam moo toogoon ci njaareem ci boqaxatul mu baraka bi ci mujjug nekkam ci suñuy bët ci ñu jamalante woon ak moom ne daa am yéene siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñam ba soppeem ba xaritam ba euh, tànnoon tamit ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Buso tànn sëriñ Seex ànd di rakkam ak ñeneen ñoo xam ne it ay mbokki taalibe lañ ne ñoom lay àndal wax leen yoon wi ni muy tëdde ak la cay xew bi yàlla dogalee loolu 1926 sëriñ bi xalaat ko waxtaane ko ak sëriñ Mbàkke Bousso ak sëriñ Seex Anta borom gaawaan 1927 euh, dogalu borom bi ñëw ci sëriñ bu mag bi Seex Mouhamadul Moustapha wóotu ko fi di di moom moom sëñ Touba biñ demee ba 1928 nag ci la Seex Mouhamadul Faadal nag bi ñu yoonalee sëriñ bi ba noppi mooy bi ñu miraasee sëriñ bi ba noppi ci ndigalul magam Seex Moustapha ak woy juróom maam Seex Anta ak sëñ bu sa nijaayam ñu am dogu nag ñoom ak pas-pasu dem mottali ci yéene ja sëriñ bu mag bi amoon moom Cheikh Mouhamadul Fadal moom nag bokkoon ca yoon woowa bokkoon tamit ca yoon wa ña garanti woon yoon wa ndax yu bari da caa xewoon yoo xam ne euh, jataay bi laajul ñu mën koo développé waaye daal bokk na ci ay kiimaan ak i xar baax yoo xam ne Cheikh Mouhamadul Fadal jëfoon na ko fa ñu nit ñu gis ne ku fi bawoo dem penku siyaara ji rasulillahi boo dellusee say ñooñ danañ lay màggal ak a ak a ak dee ko fàttaliku ñu ne kon dem ga Cheikh Mouhamadul Fadal demoon mottali ji yéene sëñ bu mag bi ak la fa xewoon ci histoire ak i jaloore ñu nit nañu jël loola wane ko ngir ñu man koo man cee jariñu waaye nañ koy fàttaliku it ngir mën a xamal nit ñi ni kat yittey Sëriñ Tuubaa ci sangam ba rasulullahi mayoon na ko la mu mébétoon neseroon ko te mottaliwu ko woon njabootu boppam gi di ay rakkam di ay doomam di ay taalibeem di mbokkam mottali dañ ko yéene jooju ndax ba ñu demee ca yoon wa la gën a kiimaane sëriñ bu mag bi na waxee woon ne noonu la yoon wa tëdde yoon wa ba ñoom Cheikh Mahamadou faaral demee na sëriñ Tuubaa waxee woon ne noonu la la yoon way tëdde yoon wa noonu la tëdde ndax ci biir yoon bi ba ko sëriñ bi di misaal nee na leen fii la ñuy déparé danañ jaar euh, France Marseille jaar Italie dëkk bu ñuy wax euh, Pisa wax leen ne it buñ fa àggee nangami fan ci aj gi danañ fa réero waaye bu boobaa da ngeen fekk ma toog ca penku sowu ba di jàng xasida mu muwaahibul naafi ba toll ci Eh, antal eh, yaasal yaasal jamila yaasal fadila antal wasila di sil xadaay ne leen bu ngeen ñëwee da ngeen ma fa fekk mm, bu ngeen réeroo rek na ngeen ñëw ngeen ngeen ñëw ci penku sow ba da ngeen ma fa fekk may jàng xasida mu waxay bu naafi keroog wax nañ ne bi nu yegsee def la ñu war a def ba toll ca bis ya sëriñ bi waxoon seex Cheikh Mouhamadul Fall dafa réeroog way juróom ya ak nijaayam ya ak mbokkam ya waaye bi loolu xewee rek seen xel ñoom sëñ Mbàkke Buso dem ca la leen sëñ Tuubaa waxoon ñu ca ca sow ba fekk Cheikh Mouhamadul Fadal ferankulaayu yor xasida Mawaahibun Naafi di ko jàng ba toll ci bayit bi sëriñ bu mag bi waxoon kon loolu it wane na ne sëriñ bi moo mébétoon neseroon waaye ñoom bi ñu dogoon ne dañ koy mottali jil yéeneem loola it na sëriñ la sëriñ ba gisoon la leen waxoon te loola rek moo am loolu nag moo tax ñun bi ñu jógee ne dañ koy lëggéeyal moom Cheikh Mahamadul faadal ñu ne kon nañu jël bis boobu def ko bis boo xam ne saa su ñëwee danañ ko mën a delloowaat wàccuwaay bi nga xam ne am na ko ci lislaam ak diine ngir man ko cee wane waaye ngir mën cee jaamu yàlla ci jaami yàlla yi waaye ngir mën a berndeel jaami yàlla yi ci seeni ruux ci xam-xam ci ay jataay yoo xam ne dana am solo lool loolu moo waral ñu koy màggal màggal googu nag jaadu na lool ndax wax naa la léegi ne la yàlla sunu borom ñi mu tudd ci alxuraan yëpp Ibrahima Mariam euh, ñoom ñëpp ku ci nekk lam jublu ci yow bam la bam koy xamal yonente bi daf ne daa bëgg ñu roy seeni jikko ngir mën a baax ngir mën a tedd ngir mën a jariñu kon ñoom it di mën di ngir ñuy roy ci seen jikko ngir mën a baax ngir mën a tedd ngir mën a jariñu kon loolu mooy sabab bi tax ñu koy màggalal di ko wooteel bis ba bis boobu nekk maggal mm, de la retour de la Mecque de Cheikh Mouhamadul Fadal ba war a toll ci 16e édition loolu mooy sabab bi tax ñu di ko def